وخلفائه المهتدين وأهل طريقته وأهل طريقته الفائزين أما بعد قال الشيخ عمر ابن سعيد الفوتي رضي الله عنه وأرضاه ثم توب جناو ذكر متد رضي الله تعالى عنه ثم توب ذكر متد الشيخ مم شيخ تيجاني رضي الله تعالى عنه ثلاثة أمور ñett mbir li man ñeel képp koo xamante ne araada cofeel cofeel mm-hmm. minallaahi bu tukkee ci buur yàlla azza mm-hmm. tedd na ci nguuram wajalla te màgg na màggaayu ëpp xelu mindeefi mm-hmm. maanaam cheikhu tijaani radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna dafa tudd ñetti mbir yoo xamante ne képp koo xamante ne sopp nga buur yàlla subhaanahu wa taala bëgg la képp koo xamante ne bëgg nga yàlla sopp la loolu maanaam ñett jikko yooyu soo ko melewee yàlla dana la sopp wala shakk mën a te amul benn sikki sàkka an na ci liy mbir te mbir mooy maa lépp loo xamante ne yu ji bu day waral mahabbatallahi cofeelu yàlla lil abdi ñeel jaam bi yazidu kooku day yokk imaanan ngëm yàlla ndax lépp loo xamante ne day tax sama borom subhaanahu wa taala sopp la day tax sama borom subhaanahu wa taala bëgg la loolu li muy tekki ci lu amul benn werante mooy day wane ni loolu dafa fekk ne day yokk sa ngëm yàlla mu ne awaluha ba ci njëkk mooy mahabbatul mahabbatul abdi mooy soppu jaam bi rabbahu boroomam subhaanahu gàcce nga lama moom tudd na ma sell ngam wa kawe na kawe bu ëpp xelu mindee fi subhaanahu wa mu ne képp loolu mooy bi ci njëkk mooy nit ki sopp yàlla ci boppam bëgg yàlla nit ki su fekkente ne bëgg na boroomam subhaanahu wa taala loolu day tegtale maanaam loolu day wu day day tax yàlla bëgg la comme ni mu ne wax qaala sama borom subhaanahu xaala wax na sama borom moom subhaanahu wa taala ci mm, fii numéroté wu ko ci tabo bi maanaam ci euh, ci euh, édition bi mm-hmm. mais ci sooratu nuur la ne sooratu nuur bi mu naan yuhibbuhum astaghfirullah sooratu maa'ida laa bëgg a wax yuhibbuhum wa yuhibbuna maanaam ñoom dañoo sopp yàlla te yàlla daf leen a sopp fekk mi ngi ko wax mu naan yaa ayyuhal ladina amanu yéen gaa yi nga xam ne gëm ngeen te dëggu fi aaya bi nekk laa lay wax maanaam daf ne yaa ayyuhal ladina amanu yéen gaa yi nga xam ne gëm ngeen te dëggu man yar tadda képp koo xamante ne dafa dellu ginnaaw mi ngi ci yéen an diini yi walif diine bi képp koo xam ne dafay bàyyi lislaam di dem di nekk ji ci yeneen di topp yéefi rek yooyu mu ne fa saw fa xel seef naa yaati dikke maanaam yàlla dana indi bi xaw min ci ay nit ñoo xam ne ñoom yuhibbuhum dañuy sopp yàlla yàlla daf leen a sopp wa yuhibbunahu ñoom ñu sopp yàlla yoo xam ñoo xamante ne ñoom aizzatin ñoom dañ duñu mel comme yéen ñi nga xam ne dangeen ngeen di dem di topp ji yéeféri ñooñu aizzatin dañuy am fulla dëgër këcc mhm. alal kuffaar ci kanamu yéeféri mhm. waaye azillatin dañuy wàcce seen bopp alal mu'min na ci jullit ñi mhm. yu jaahiduuna fi sabilillahi dañuy xeex ci yoon yàlla xaq jihaad yi kéem nañ war a xeexe ci yoonu yàlla waaye walaa eh, eh, walaa yaxaafuuna te duñu ragal lawmata laa'im ngaañu ko leen di ngaañu critique duñ ko ragal ñoom yàlla moo leen yitteel kon lax lan yàlla bu def leen a sopp wa yuhibbunahu ñoom ñu sopp yàlla mhm. waaw maanaam nit ki la fekk que mu sopp yàlla mooy wane ni moom yàlla ko sopp parce que yàlla su ko soppul mukk yàlla du def mukk moom mu di ko sopp mhm. saaniha ñaareel bi mooy ittibaahu topp ko moom yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. fii kulli xarakatin ci bépp yëngatu wa sukunin akuk dal wa ak wax wa ak jëf wa ak xaal nit ki nu mënti mel muy xool ana nan la yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daan defee lii nan la daan waxee lii nan la daan def bu jamono jii amee xaal bi bu ci nekkee ana nan la daan doxale lépp lépp lépp muy jéem a nuru yenent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu moom ku ko def rek mu bëgg yàlla waaw ñaareel bi mu bëgg yenent muy topp muy topp yenent bi voilà ci ay jikkoom waaw ci ay ay doxalinam ay doxal waaw kay baay صلى الله عليه وسلم من قال وحنا تعالى بور يالا مكاوي من قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله سوره ال عمران ايه 31 من قل وخال يو يننت يالا محمد صلى الله عليه وسلم ان كنتم فكنتني يين كات نيك نين ньо خامتيني تحبون دا نين سوف الله بور يالا فاتبعوني كون نين ما توب بوكو دافي يحببكم دا نالن سوف الله بور يالا li ay bi li ñu tudde ay fi dafa am tour ay bi comme ni ma amay ayatu kursi yi ñu tuddee ko allah la ilaha illa qayyuum ay bob et cetera bi tamit dafa am mom la tuddé aayatul mihna manam moy aaye de l'épreuve le verset de l'épreuve sourate al Imran al Imran ah mi ngi ni ay 31 ay ay 13 la bëgg a non non ay 31 la astaghfirullah ay 31 sourate al Imran manam moy lan mooy gars yi day bu ñu woote woon ne dañoo sopp yeneen bi dañoo sopp yàlla sopp yàlla bëgg nañ yàlla bëgg nañ yàlla bëgg nañ yàlla mhm. mu ne leen waa léegi déedéet su fekkente ne bëgg ngeen yàlla sopp ngeen yàlla dëgg la ci yéen mhm. da ngeen di wax ne bëgg ngeen yàlla mhm. léegi nag yàlla dani man maa yeneen taam sallallahu alayhi wasallam man la yónni boo leen ma toppee résultat bi du ne léegi yàlla moo leen di bëgg mu du ne yéen yéen a bëgg yàlla yàlla da koy nangu déedéet day passé ci beneen étape mooy yàlla daf leen di bëgg sax yéen te te li ëpp solo mooy yàlla bëgg la pas yow bëgg yàlla li ëpp solo mooy yàlla xam nga lool la maanaam euh, euh, euh, comme di waykat arab wa kulluhum yaddaay waslam bi layla wa layla la yaddaay lahum bi zaaka ki nekk ne gaa yëpp ku ne ne laylaa daal bëgg naa ko laylaa bëgg naa ko laylaa daal tabarakalla bëgg la loolu moo ëpp mhm. <laughs> mhm. laylaa bëgg la de moo ëpp solo bëgg laylaa donc nga neen la tudd bi sourate Al Imran la tudd saalisuhaa ñetteel bi mhm. nga xamante ne nit ki bu ko jikkoo suñu borom subhaanahu wa dana ko sopp te bu boobaa loolu day yokk ngëm yàllam moy at taharatu ak laab al kamilatu bad ajmat min kulli ma ci lépp lo xamantene min kulli ci lépp lo xamne ne maam maa wuuti maanaam si wallahi wut nak yàlla min kulli ma ci lépp lo xamantene si wallahi wut nak yàlla azza wa jalla maa gën tedd na zahiran ci biti wa batana ak ci bir ah manam le fait que nit ki laab set wecc wecc wecc ci lépp loo xam te ne dafa wuteeg yàlla ci zahir ak ci baatin moom daal lu dul mbiru yàlla rek soxalu ko moom mbiru yàlla rek ko ko soxal mbiru yàllaa ko soxal lu muy wut ci àddunaam sax mbiru yàlla la ciy séentu voilà la première chose li muy njëkk a euh, seet devant chaque situation benn question rek lay posé wu ana lan mooy tax yàlla kontaan ak lan mooy tax mu mer lii tax yàlla kontaan ma defee noonu lii tax mu mer ma bàyyi ko moom c'est la c'est la seule question bu muy posé wu qaala wax na allahu bur yàlla taala kawenam mu ne sumu borom subhaanahu wa taala nee na wallahu bur yàlla yuhibbu sopp na almutahirina way laab yi way set ya wecc way laab ya dañoo laab waaw sell ci biir ak ci biti surtout tawba aaya 108 ah loolu jeex na mune fa la wax jee intaha mune alif bobu ngay gis ak ha lolou lay tek intaha mo jeex na fin fin de citation foo gisee rek fin de citation lay tek voilà intaha alif ak ha bi waaw waaw dégg nga mune khultu nak man ma mom Cheikh Omar radiyallahu taala anhu legui nak moy wax ginnaw ba yii yëpp lim na ba nopi Mm-hmm. mu ne wa jumlatu mboole maa li nga xamante ne mm-hmm. zukira du nañ ko huna fii minal xisaali ci ay melo mm-hmm. ci ay jikko ci ay doxalin allati yi nga xamante ne tazidu dana yokk fil iman ci jingam yàlla nit ki xam suñ wa xam suuna juróom fukk la ak juróom xaslatan ci jikko ci doxalin yoo xam ne mu ne fa jaat mu daal di dikk nag bi hamdulilah sant yàlla boo maanaam mi ngi dikkee nag ñuy sant yàlla subhaanahu wa taala mutaabaqatan mbir mi ndax dafa dikk mutaabaqatan mbiram nekk aji dëppoo adada ci ak limu fusuulu mm, fusuuli maanaam dogu walla maanaam chapitre haadal kitaabi ci bile téere sama borom subhaanahu wa dafa dëppale limu chapitre yi nekk ci téere bi mu nekk cinquante cinq mu ne min xayri qasdin te boo bokkul ak ak jubluwaay min nii bu tukkee ci man nee na moom jubluwu ci woon le fait que mbir yi nekk cinquante cinq moom moom dafa tombe yàlla moo ko def tawfiqul ilaahi la wa innama li am ba des mooy hiya moom muwaafaqatun duf ak dëppoo la boo xam ne yatin ko jóg buur yàlla la subhanahu wa taala walillahi ñeel na buur yàlla kase dong rek alhamdu mboolem xaaji cant yi dëgg-dëgg sant subhanahu wa taala muy 55 cinq bunt ni ki noonu cinquante cinq dafa tombeek turu yàlla bu ñu wax mujibu mooy aji nangu ji ñaan aji dégg ji aji nangu ji jëf nit ki bu jëfee dara yàlla mi koy nangu ki koy nangu kenn rek la muy yàlla waaw mujibu ni ki noonu mooy nanguy ñaan mhm. cinquante cinq ni ki noonu mooy initialu Tiwaawan cinquante cinq avant ñu ci yokk neuf bi te neuf c'est zéro comme ni ko gars yi mhm. <laughs> waaw ci woote la téléphone mhm. neuf cent cinquante cinq mooy initial mooy kiw Tiwaawan voilà waaw mu daal di dëppoo mu nekk mujjibu yàlla muy nangu ay ñaan alhamdulilah bu yalla mi nang nit ku ko jëfël mu nangu sa jëf ak nu jëf ji mënti mel mom bu ko nexé mu nangu ko loolu mm-hmm. subhana ñu nangul suñu jëf mm-hmm. té lool mom mo ëpp solo mm-hmm. ndax nangu té té c'est important parce que ñu bëri xamuñu né nangu nangu ñaan nangu jëf c'est important comme li sama borom wax euh, minal muttaqin wa abdullah ibn umar radiyallahu anhu bi mi génn aduna doom yi ne ko Saalim ne ko ah rahimahullah ne ko ah yow day papa ah, tabarakallah nit ku baax nga nit ku sell nga ah yaay yow ànd nga ak yeneen bi sallallahu alayhi sa adduna yëpp da nga ko jàngale xeex ci yoonu yàlla toog ci diine et cetera ni mu tëddee noonu ci loolu feebar mu ne yëkkati leen mu yëkkati ko mu toog mu ne est-ce que xam nga kan la yàlla di nangul hal taarif mim man yat mim man yataqabbalu llahu minhu est-ce que xam nga ci kan kan la yàlla nangul mu ne ko am mu ne ko yàlla kenn lay nangul moy ñi ragal yàlla innama yataqabbalu allahu min almuttaqin comme niko al ayat bi wax qur'an yalla ñi ragal yalla lay nangul ce qui veut dire que xal bobu bu nekkul ci nit ki <laughs> ak nangu yalla nangul kon nak mu ne kon tatimma li nak luy jexal la maam luy tëj la luy mottali la mu ne man kep ko xamantene arada nam amalihi gis nga ko salaaha amalihi sell teg jëfam ak jëfam yéwén sell wastiqaamatihi ba pare mu nekk koo xam ne day jub xocc ma allahi ànd ak buur yàlla azza wa jalla màgg na tedd na mu ne falaa yatakallamu bu muy wax bu muy jox génne kàddoom illa fi daruriyaatihi lu dul ci yi nga xam ne mënut a ñàkk wa ma yaanihi ak li koy jariñ qaala allahu yàlla taala kawe na wax na ne ci suratul ahzab aaya 70 ak 71 mu ne yaa ayyuha alladina amanu ttaqu llaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum acmaalakum li ci tegu mooy wa yaxfir lakum dunubakum wa man yuti allah wa rasulahu faqad faaza fawzan azima mu ne yaa ayyuhal ladina amanu e yéen gaa yi nga xam ne gëm ngeen te dëggu ittaqoo na ngeen ragal allaha buur yàlla waqulu te na ngeen di wax qawlan wax joo xamante ne sadidan ju mëdd la maanaam dee leen xool wax ji maanaam ni mu gën a approprié ni mu gën a ànd ak sagesse ni mu gën a baaxe wax ju nekk ngeen teg ko fa yuslih bu ko defé dana yéwénal lakum ñel leen amalakum seen jëf yi la ca tagu moy way yaghfir lakum te dana leen jéggal zunubakum seen bakkar sama borom subhanahu wa taala te ci ne wa man yut'i la kep ko xamne top na yàlla wa rasulah ak yenen tam bi sallallahu alayhi wa sallam faqad deug deug fa za taxena fawzan azima ak taxe gu màgg muné kon nak waalam muné ne waalam na nga xamne anna zuhda naka dëddu fi dunya ci àdduna yuuri su day waral al ilma xam-xam min xayri ta'allumun te fekk sa maanaam te nit te saa nga sàkku ko mhm. ci lu àndul ak sàkku mhm. nit sàkku xam-xam bi nit ki bu dëddoo àdduna yàlla da koy may xam-xam boo xamante ne du sax bu muy bu mu dem wuti ji pour jàng ko mhm. wal dana koy mm, may ak njub bi xayri hidaaya te sàkkuwul demul sax Mm-hmm. wuti ju jub googu yàlla da ko koy indi da ko koy tàggatalal yàlla dana ko tàggatalal xam-xam tàggatal ko boroom xam-xam yu baax yi tàggatal ko nit ñu sell ñi tàggatal ko njub tàggatal ko circonstances yi tax nit ki mën a jub yépp yàlla da ko koy tàggatal sans moom mu def effort bu mag. parce que dafa parce que dafa dëddu àdduna maanaam mooy yàlla le préfère dëddu àdduna mooy loolu mooy le fait que mu ne yàlla laa laa préféré ci kaw lépp affaire mën naa ñàkk sama lépp ba mu des yàlla. mën naa ñàkk lépp ba mu des yàlla yàlla daal laa ñàkk waaw lu ma am rek tamit dama ko am noonu danaa ko bàyyi xel danaa ko mais yàlla daal laa mënta ñàkk bu ma ko ñàkkee garawul loolu mooy dëddu mu ne wal izzu yàlla dana ko may ak nooteel mhm. ak teranga min ghayri ashiratin te du ànd ak famille mhm. ànd ak amul famille bu koy jàppale ba tax muy am teranga googu mais yàlla da ko koy may mhm. ndax dëddu àdduna gi mu doon moo koy may benn force intérieure ba pare da koy may tamit beneen puissance parce que nit ñi dañuy xam ne soxlaaluñ ko soxlaalu leen dara moom yàlla la amal solo léegi de ce euh, loolu day waral euh, euh, day am une richesse de ba pare day am benn benn benn genre notoriété boo xamante ne looloo ko koy may parce que le fait que gars yi xam nañ ni moom kii moom amul intérêt amuluñ ko intéret moom moom moom amul maanaam mm-hmm. ko intérêt donc ce qui veut dire moom. Mm-hmm. moom moo leen amul njëriñoo. voilà.

ànd ak loolu day riche waaw mu ne qaala wax na sallallahu alayhi wa sallam yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na wa araada képp koo xam ne namm na an yutiyewu ci mu jox ko allah buur yàlla elman xam-xam bi xayri taallumin te sakku sakku sakul xam-xam gi mhm. wa hudan ak njub wala ah bi xayri hidayatin te sakul boolewul ci sakku njub gi mhm. fal yasad na deddu fi dunya ci aduna mhm. waaw ku bëgg day nay dëddu àdduna waaw ku bëgg ñaar yi na ngay deddu aduna qaala wax na ba tey sallallahu alayhi wa sallam iza zahida bu dëddoo al abdu jàmbi fi dunya ci àdduna warasahu dana kon donnale mhm. allahu bur yàlla salaasa xisaale ñetti mbir ñetti jikko ñetti mbir yoo xamante ne da koy am izzan ak nooteel akuk teranga min ghayri ashiratin te àndut ak mhm. maanaam famille bu voilà waxinan mhm. akuk ko woomal min ghayri maalin te àndut ak amul alal ndax la day riche pourtant amul amul dara mais riche na parce soxla bu mu am day faju ànd ak yorul matériel bien matériel mais pourtant soxlaam yëpp da koy faj alors que gars yi dañuy nekk ay riche ay yor ay alal ay milliards ak millions seeni problème yi bu faju donc moom moo leen gën a riche te du yo du dese du yóbbaale bor kee moom milliardaire la mais bor yi mu yóbbu yor rek mm, richesse richesse mm. ba pare day am richesse intérieure également voilà mm-hmm. waaye man day am xam-xam min xayri taallumin te sa amu sàkku ko mm-hmm. moom la reprendre fii moom la reprendre wax yenente bi sallallahu alayhi la la doon wax voilà mhm. loolu day wane ni ñoom du ñuy wax sans muy delluwaat ci waxu yàlla wala waxu yenente bi mhm. sallallahu alayhi la sallam mhm. xoolee boobu ba léegi voilà da koy gis day delluwaat ci waxu yàlla waxu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax xultu waaw indi alquran voilà indi wax wala saa xultu mu njëkkee alquran voilà wala waxu yenente bi xultu moom voilà voilà toujours gis gis da ngay gis en fait ni muy. nu muy procédé voilà ni muy nasee. te borom koo xam ne noonu la ñuy def. voilà si si. ni diñu rek wax sen wax. dañuy wax voilà luñu wax rek dañ koy appuyer par des mm-hmm. versets coraniques voilà wax ko yenn ci salaam. pour dëggal li ñuy wax déjà mais jox ko aussi surtout. voilà sook voilà ci lii laay wax ci si laa ko basé. Mm-hmm. si si. Mm-hmm. bismillah. mona qultu dama ne. ba tey moom mooy wax Cheikh Omar radiallahu anhu wa ardaahu annabi walxaamis juróomeel bi min fawaidi zuhdi ci njariñu dëddu àdduna mooy mahabbatallahi maanaam sofeelu yàlla taala mu kawe mi li zahidi ñeel aji dëddu àdduna ji ci dëddu àdduna yàlla da koy sopp qaala wax na sallallahu alayhi wa sallam yenent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na lilladi ñeel ki nga xamante ne sa alahoo da koo laaj an amalin ci jëf ci mbirum jëf lu aju ci jëf goo xamante ne yuhibbuhu sopp na ko allahu ah yuhibbuhu dana ko soppi allah bur yàlla alayhi ci kaw jëf jooja wa yuhibbuhu te dana ko sopp annaasu nit ñi maanaam yàlla dana tax yàlla bëgg ko ba pare nit ñi danañ ko bëgg waaw parce que dani bokk na ci njariñal parce que dafa wax ñetti njariñ yu dëddu àdduna am sànq wax na ci ñetti njariñ mm-hmm. mooy day tax nit ki di am xam-xam boo xamante ne sàkku ko mm-hmm. day tax nit ki am puissance Mm-hmm. notoriété boo xamante ne pour pourtant amul famille bu ko wër mm-hmm. fu mu dem euh, beneen bi mooy day am richesse boo xamante ne pourtant utul alal mm-hmm. ah ñeent boog la bëgg wax astaghfirullah ah? euh, ba pare day am njub sans mu sàkku njub voilà loolu mooy ñeent voilà naturellement mu am juróomeel mu ne day tax yàlla bëgg ko waaw te sax tudd na la juróom-benneel parce que mooy day tax tamit nit ñi bëgg ko waaw moo tax mu léegi nag muy appuyer waxam jooju mu ne ndax yeneen bi sallallahu alayhi wa dafa waa ju ñëw laaj ko ne ko. Mhm. ndax am maanaam dama bëgg nga tegtal ma jëf joo xamante ne. Mhm. dana tax yàlla daf may bëgg su jëfee jëf jooju ba pare nit ñi tamit danañu ma bëgg. fa mhm. qaala daal di koy tontu mu daal di wax sallallahu alayhi wa sallam. ne ko izhud dëddul fi dunya ci àdduna yuhibbuka bu ko defee mu sopp la allah buur yàlla. allahu buur yàlla. Mm-hmm. yàlla boo bu fekkente ne dangaa dëddu àdduna da lay bëgg mm-hmm. maanaam mooy comme ni ñu waxoon sànq maanaam yow mën ngaa ñàkk lépp bu mu des yàlla mm-hmm. mais loo am tamit loolu ci loxo yi lay yem ci banque bi lay ne ci matériel bi lay nekk mais ci xol xol bi moom yàlla moo ci ne mooy dëddu àdduna mu ne waaye nag wasut wasut na nga dëddu fii maa inda naas ci li ci loxo yi nit ñi yoxe bu ko bu ko mu soppala an naasu nit ñi nit ñi bu xamee ne soxlaa loo leen dara yow dañ lay bëgg parce que boo leen bàyyee ak li ñu yor ce qui veut dire que ba pare nga leen di diggal lu baax di leen tere lu bon di leen wax seen intérêt te te yow soxlaaloo leen dara dañ lay bëgg ah nit ñi moom boo leen bàyyee ak li ñu am rek ñu bëgg commencé la bëgg moom bu dee da leen di bàyyee ak li ñu am. léegi ñu mhm. commencé laa sopp mhm. wa man araada képp koo xamante ne nag nam na an yakuna yenent bi mooy wax ba tey sallallahu alayhi wa sallam mhm. wa man araada képp koo xam ne nam na an yakuna ci mu nekk allahu buur yàlla maawo di ànd ak moom fii kulli ci bépp mbir fii amaanin mi ngi ci kóol yàlla mu ngi ci sécurité kooku mi ngi ci sécurité koo xamante ne ci lépp lépp lépp lu mu nekk day bëgg yàlla ànd ci ak moom waa qaala wax na allah bur yàlla taala kawe na mu ne wa'lamu ci sourate tawba aya 36 wa'lamu na ngeen xam ne anna allah liy mbir te mbir mooy bur yàlla kat ma al na mi ngi ànd ak ñoo way ragal yàlla ñi ragal yàlla ñooñu la yàlla ànd na ak ñoom jàppal wa qaala wax na allah bur yàlla taala kawe na mu ba tey ci suratul naxli aya 128 mu ne inna allah li wér boobu mooy bu yàlla ma alladina mi ngi ànd ak gaa yi nga xam ne ittaqaw dañoo ragal yàlla walladina ak gaa yi nga xam ne hum ñoom muhsinuna way rafetal lañ benn ñaareel ña ñaaree ñaara ngoog mooy nit kuy rafetal ku ragal yàlla ak kuy rafetal mu ne waqaala wax na taala kawnoom ba tey inna allah naka bur yàlla ma as-sabirina mi ngi ànd ak ñuy muñ ci sootul baqara ay 153 kon kuy muñ tamit yàlla day ànd ak yow muy ñett ñett jikko yu mu waxagum waaw kon muy ragal yàlla mm-hmm. di rafetal di sellal mm-hmm. ak muñ mm-hmm. waaw am na beneen nen am na beneen mooy su ma juumul mooy ñi yàlla inna allaha ma al muminina kon loolu foofu la maanaam mu ne kon wa intaha foofu la wax ji am mu ne wata wallaahu bur yàlla taala kawe na ma mm-hmm. al muwaffiq mooy aji dëppale bi man nii ci xéewalam li sawaabi wala boog moom rek la ñuy ñaan yàlla mm-hmm. moom al mooy mu dëppale ñu bi man ni ci xéewalam li sawaabi ñeel li nga xam ne moom mooy li jub mm-hmm. wa ilayhi te ci jëm ci moom dong subhaanahu gàcc ngàlla moom tudd na mag sell ngam almarji moom mooy delluwaay ba wal ma abu te moom mooy wéeruwaay ba sama borom subhaanahu wa taala la ñuy dal ci la ñuy wéeru kon foofu la muqaddima bi muqaddima bi yam walillahi alhamdu wal minna mu des ñu dugg ci beneen bi kon moom mooy buntu bu njëkk bi alhamdulilah mu ne kon Cheikh Omar radiallahu taala anhu daal di wax alfaslul awwal bunt maanaam dog bu njëkk bi bi nga xamante ne day teqantal ay mbir ay masala di leeral mu ne fii ilaami ci di nee na mi ngi koy def fii mhm. ilaami al ixwaani fii di xamal al mbokk yi mhm. an na liy mbir te mbir mooy al ijaabatu mhm. di tontu la an ahlillaahi di ah, al ijaabata an di tontu la ahlillaahi yàlla yi wa zabbu aka di jañal an hum wallif leen maanaam di leen défendre wa nasrahum ak di leen dimbali Mm-hmm. alaaman ci kaw képp koo xamante ne yantaqisuhum mi ngi leen di jéem a doya dal mm-hmm. wa yuridu te mi ngi namm shaynahum lu bon ci ñoom mm-hmm. bi maanaam lu ñaaw rek ci ñoom bil inkaari ci diingat gi muy diingat alayhim ci seen kaw wa alaaman ak ci ki nga xamante ne tamit yantasi bu day askanoo ilayhim jëm ci moom maanaam di leen tontul di leen défendre ak di leen dimbali ci kaw nit kooku nga xamante ne day bëgg di leen tuutal ak di leen ñaawal ak di leen diingat Mm-hmm. ak di di ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñiy askanoo ci nitu yàlla yu baax yooyu radiyallahu taala anhum mu ne jëf ju jëf noonu de waajibun lu war la waaye di ci ku nekk la war de dafa war a ala kulli ci képp koo xam ne aalimin ku am xam aalimin ku xam la mm-hmm. ku am xam-xam la mutadayyinin ba pare tamit nitu diine la diine ñor na ko mm-hmm. wa an na la xoo ca ah, te li ma leen di yëgal mooy an na lii mbir tey mooy lëxoo ñeel na ko fii ci jëfam jooju bu ko defee mm-hmm. ajran ak pay man gu màgg màgg màgg gu ko suñu borom subhaanahu wa laa dencal am mm-hmm. na annahu ci li wér bu wóor mooy mm-hmm. laa eh, yaridu laa yaruddu du delloo alayhim ci seen kaw maanaam ah wala boog laa yari du rot mbir mi du wàcc alayhim ci maanaam ci seen kaw du nit ki du du nekk koo xam ne day da leen di diingat di am dara lu muy lu ñaaw mhm. lu mu leen di defal illaa man lu dul ñe koo xamante ne mhm. araada nam mën mhm. a moom yàlla an yat fi ci mu fay nuuraxoo leeram waaye àddima te mu hmm? maanaam loolu la maanaam ku yàlla bëgg sag leer fay kese lay xiirtal ngay wax lu ñaaw di jublu ci lu ñaaw di def lu ñaaw nit yàlla yi ak ñi nga xam ne dañoo askanoo ci ñoom wa yaadi mu ba pare mu daal di ñàkkal an nafa njariñ bi elmihi ci xam-xamam wa bi mu allafaati ak i téeréem inkaana ndéem nekk na waajooju min ahli taalif ci ñoñu taalif maanaam ñuy taalif ay téere waaw li suu i gis nga fii alif la bind ci kii bi askan kii bi mhm. loolu njuumte la ci kii bi xolal ci ci kii bi voilà li suu i adabi yi la mhm. li suu i ngir sababu ñaaw ak adabi yi mhm. tegginam dafa ñaaw teggin maanaam ni nga xam ne mooy mooy dina la amul teggin daal fu adab mooy loolu mooy jëfi teggin gu ñu maanaam ñàkka eh, mooy kuy def loolu amul teggin waaw nit ki le fait amul benn teggin Mm-hmm. nan lay manifesté woo mooy muy diñat nitu yàlla yeeg waa di def ci di leen wax lu ñaaw di et cetera ak di jéem a di leen jéem a euh, euh, euh, tuutal ak di bëgg di di yàq seen der ñoom ak ñi askano ci ñoom loolu nag day tax moom bu amoon leer yàlla day fay leeram bu fekkente ne Euh, dafay nekk koo xam ne dafa am xam-xam yàlla day dindi njariñ ci xam-xam du ko nit ñi duñ ci jariñu beneen bi mooy ay mu allafaatam maanaam bu dee dafa am ay téere yu muy bind yàlla day dindi njariñu téere yooyu tamit yooyu yëpp yàlla daf koy punir ndax lan ndax ñàkk teggin gi mu ñàkk teggin mm-hmm. waaw loolu nag mu ne kon fa aqulu maa ngi wax wa billaahi te ci yàlla kese kese dong moom taala kawana moom lay yaakaar di ko ñaan ak tawfiq ak dëppale mm-hmm. ñun tamit insha allah moom la ñuy ñaan mu dëppale ñu tamit wa huwa moom yàlla alhaadi mooy aji gindee bi man ni ci xéewalam mm-hmm. ila sawa tariq ci yoon wujub bi mm-hmm. ay alam xamal an na maqsuuduna nekk li an na li wér bu wóor mooy maqsuuduna suñu ah, maqsuuduna suñuk Euh, jubluwaay mhm. suñu nam namm mhm. suñu objectif al objectif al azam bi gën a màgg mhm. fii taalifi ci taalif gi ñu taalif haadal kitaabi bi la téere al mubaaraka bu tedd bi mooy azab mooy di jañ an araadi wëllif deru awliya allahi nitu yàlla ñuy wàllu yàlla yi défendre répondre maanaam défense défendre leen wa man ak ci képp koo xamante ne intasaba dafa askanoo ilayhim jëm ci ñoom mi man di défendre défendre len contre ñi nga xamné arada mi man ci ñi nga xamné arada nam ah mm-hmm. non non astaghfirullah wa man intasaba ak kep ko xamné ne askanoona ilayhim jëm ci ñoom mi man te bok ci ñi nga xamné na arada nam na allah bur yàlla isaadahum ci texel manam manam ñi nam ñu texel len manam ah min bi bayani la motax manam bayani la day leeral day wax ne manam yalla ñi nga xamante ne maanaam mu ne suñu objectif bi gën a mag bi tax mu nee na objectif bi gën a mag bi tax mu bind téere bi mooy di défendre nitu yàlla yi ak képp koo xamante ne dafa askanoo jëme ci ñoom waaw maanaam dafay affilié wu ci ñoom mais mu ne léegi nag mu ne mi man ci ñi nga mooy ku affilié wu jëme ci moom dafa fekk ne yàlla dafa namm ci moom mu texe mm-hmm. war raddu ak tontu ala man ci kaw képp ci képp koo xamante ne yunkiru mhm. day diingat alayhim ci seen kaw day diingat nitu yàlla yi mhm. mim mante bokk ci ñi nga xamante ne te ñooñu mooy ñi nga xamante ne araadallaahu nam na yàlla shaqawatahum seenuk texee di mhm. watardihim ak seenu dàq gim leen di dàq ci péyam ba def ah maanaam fexe ba maanaam dàq gim leen dàq ci péyam ba mooy du ñu nekk ay nitam du ñu nekk euh, voilà wa ibaadahum ak soril gim leen di sori ci ñu sori yàlla li ah voilà kon objectif moy di lii son grand son plus grand objectif moy mhm. première partie bi suis manam moy tontu défendre les ba paré ak kep de ci les mu len ni li ngeen nekk yi gi ngeen nitu yi mais aussi di di wala mu loolu mooy dëgg mais aussi di réfuter thèse képp ko xamantene da ngay diingat da ngay contredire da ngay da ngay deug wala yow da nga contre nitu yalla yi wala da ngay suufeel nitu yalla yi ak ñi and ak ñom loolu motax di len wan ne tarixa yi ngeen nek deug la lu bax la et cetera loolu moo tax mu bind voilà voilà ça renvoie au titre voilà hizbur rahim voilà voilà ñu koy hizbur rajim voilà exactement barakallahu fik mhm. voilà

loolu yanuwul parce que objectif bi c'est un objectif tellement je c'est pas quelque chose de compliqué à comprendre. voilà te du thèse boo xam ni du idée c'est difficile déjà à comprendre. voilà te idée boo xam c'est difficile à défendre. voilà Donc wax voilà donc ba pare objectif bi sax bu ko amee loolu mooy su fekkonté né gars duñ ko mëna xam. Mm-hmm. mais kon du jartu bind. bien sûr kon jartu bind ba pare objectif <laughs> bobu mom c'est une lutte de longue de de de de longue durée. Mm-hmm. voilà. comme ni nga wax kooku c'est ludd la boo xamante ne day abadan day dem saa su nekk chaque époque nit ñi dañuy soxla di am téere bi saa su nekk nit ñi dañuy soxla di am objectif bi di mën a défendre nit ñu baax ñi ba pare di réfuter nit ñu bon ñi saa su ne nit ñi dañuy am soxla boobu léegi nan lay amee objectif boobu boo pare mu nekk bind boo xamante ne day compliqué compliqué ba kenn du ko xam yal nañu yàlla sàmm na sallallahu alayhi wa sallam dégg mhm. mu ne loolu nag dama koo def comme objectif li an na ndax kat li wér booy lii mbir te mbir mooy mhm. allahu buur allahu buri yàlla taa xat dëgg-dëgg amaranaa daf ñoo digal bi zalika ci loolu yàlla moo ñu ko digal mhm. wa amaranaa te daf ñoo digal bi hii ci loolu tamit ba tey rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa qaala wax na subhaanahu gàcc nga lamam tudd na mu sell ngam moom sama boroom subhaanahu wa taala te kawe na kawe gu jéggi xelu mindeef yi ni sama boroom dafa wax ci sóoratul ida ñaareelu aaya bi rek mu ne wa taawanu te da ngeen di jàpp jàppalante alal birri ci mbaax wa wa ak ragal yàlla jàppale leen ci mbaax te ak ragal yàlla mu ne walaa te lu wéru te te amul mukk wala muawanata amul ak jàppalante ala taqwa ci ragal yàlla azamu bu gën a màgg min nasril ulama yi ci dimbali boroom xam-xam yi al aarifina way xàmmee dëgg-dëgg di xame billaahi ci yàlla aarifina billaahi xam boroom xam-xam yi nga xam te ne ñoom ay aarifina billaahi ne di leen dimbali loolu amul jàppalante bu gën a jàppalante ci mbaax ak ragal yàlla bu kawee loolu mm-hmm. di xam-xam di xam borom xam-xam yi waaw te di leen jàppale waaw ci seen idée yi waaw ak waaw ci seen idée yi seen liggéey seen objectif yooyu hmm. mais loolu ana ban jàppalante ci mbaax ak ragal yàlla moo gën a kawe loolu amul hmm. mu an ah waaw hmm, parce que ñoom ci buum bi nga jàpp buum boobu nga jàpp waaw kay li an na ndax li wér bu wóor mooy man képp koo xam ne nasarahum dimbali na leen faqat dëgg dëgg nasarallah dimbali na yàlla wa man nasara képp koo xam ne dimbali na allah bur yàlla yan suruhu yàlla dana ko dimbali waaw loolu nag dina leeral baat boobu lu muy tekki ci kanam mu ne waman xasalom képp ku leen beccangal beccangal nag mooy bàyyi la rek bañ laa di la seetaan waaw nan bu loo wax ñu non moom bon tu sais quoi man cela ne me concerne pas voilà donc voilà je vais pas m'y mêler non affaire yi su fekkente ne dañu tuutal diine ci da nga war a taxaw bu fekkee man nga ko il ne faut pas dire que ça ne me concerne pas. Ça te concerne directement. Il ne faut pas essayer de rester à l'égard des, des qui concernent ta religion. Si tu es en mesure de répondre et de défendre, tu défends. Tu fais, voilà. <laughs> si, comme nous bëri ci cest là dire que dafa am bes bonne affaire Ça buy am Moi, le simple fait que nit ñi nekk ci benn mbolo am kenn ku yëkkati waxu dëgg jappalé ko nga taxaw rek ne ko yàlla na la yàlla fay ci sa wax ji nga wax rek nga xam ne bu boobaa day ngalab gémminu caaxaankat yi parce que imagine tey bu ñu toogee nekk quinze personnes benn affaire bu bon xew fi maanaam nit ñi def dara lu bon wala kenn def ko benn waaye jóg ne hey lii baaxul ndax yàlla lii la wax yeneen ci bi sallallahu alayhi lii la wax borom xam-xam yi lii lañ wax rahmatullah daal di dëgg le simple fait que bu noppee rek am ku jóg ne ko yàlla na la yàlla fay lii nga wax mooy dëgg rek day day maanaam mbooleem caaxaankat yi bëggoona mm-hmm. euh, euh, euh, yi nga xam ne doon nañ xalaat sax mm-hmm. commencé xool nu ñuy sabootee wax ñi nu ñuy jógee révolté woo rek dañuy commencé da leen di ngalab day tëj voilà le simple fait boobu yow tam jàppale nga dëgg. la ñuy wax cloué au bec. voilà. Ah, cloué au bec. <laughs> voilà. waaw mais le simple fait que benn waay wax waxu ci waxu dëgg keneen wax waxu caaxaan ñu bàyyi leen di leen seetaan yow nga xam ni kii moo am dëgg mais jàppalewuloo ko dugal yoo xamal ne yaa ngi jàppale caaxaan parce que nitu caaxaan yi ñoo gën a bëri le simple fait que nga dugal sa wax rek jàppale même boo nga man daal kii daal xam naa li mu wax mooy dëgg loolu le simple fait nga mënoon ko te defoo ko rek yoo xam ne yaa ngi jàppale caaxaan mu ne nag kon waqat dëgg-dëgg xasalahum becc wa man xasalahum képp koo xam ne becc nga leneen faqat dëgg-dëgg xaana war na allah buur yàlla wa rasulahu ak yenentam bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañu yàlla sàmm amiin ya rabbi amiin waaw mu ne wali haada te lii wali haadal maanaa te ci ngir boobu maanaa xaala la wax baadul fudala leen lenn ci nit ñu sell ñu ñu borom ngëneel yi min ahlillah te bokk ci nitu yàlla yi taala kaw na mu am na kenn ci borom ngëneeli te maanaam kenn ci nitu yàlla yi mhm. koo xamante ne dafa wax ne man lam yuridal man lam yuridul aalima al maqbula mhm. bil xaqi xaana allaha wa rasu war mhm. man lam eh, eh, yuridu même ku nammul jubluwul ci al aalim boroom xam-xam al maqbula koo xamante ne ku ñu nangu la bil xaq ci dëgg xaana kooku war na allah bur yàlla war rasula ak yenent bi sallallahu alayhi ndax lan wala boog man lam yarut dal aalim voilà maam ku tontu lul boroom xam-xam yi ku leen défendrewul kooku war na yàlla ak yenentaam bi sallallahu alayhi wa is ndax lan dafa fekk na nasruhu képp ku dimbali boroom xam-xam boobu boobu noonu nga xamante ne mhm. ah dëgg rek lay maanaam lay lay lay défendre mhm. ndax dimbali ko min nasrihi dafa bokk ci dimbali ko moom yàlla taalaa kawenam wax xaslu wax xasluhu beccangal ko nag maanaam bàyyi ko di ko seetaan bañ koo jàppale yu shawishu day jaxase xelu al juhaala ñi nga xam ne xamuñu dañoo réer yu shawishu waaw mooy day jax jaxat day jaxase yu shawishu noo traduit en français j'ai jaxase ambigu ambiguïté les indi day semer l'ambiguïté hmm. lépp voilà le doute voilà Voilà la controverse Voilà le genre le doute ambiguïté voilà surtout ambiguïté hmm. day indi kon ambiguïté ci ñi nga pas. ne hmm. xamuñu. ñi français semer le doute dans l'esprit des gens. voilà loolu lay wax voilà semer le doute dans l'esprit des gens voilà. Ah. parce que bu parce que bu que ne waa ji dimbaliwuloo ko te nga mënoon ko dimbali. léegi day tax nit ñi ñoom duñu xam duñu xam fu ñu féetee duñu mën a xam tamit fu dëgg nekk. voilà duñ ko mën a xam. Mm-hmm. parce que dañuy defee ne. Mm-hmm. le fait que gars yi gën a bëri. parce que tey wax ci AVM dafa isolé. voilà ñu xam ne dañuy caaxaan dañoo bëri. forcément comme ni isolé même bu nekkee benn kàddu la peut-être moo moo nekkul ci dëgg. voilà duñu xam. voilà donc bu benn ñaar nit jógee nekkul li nga wax dëgg la. voilà day gën a jox. voilà da koy gën a jox poids voilà. voilà. mu ne nag wa ida kaana des na dernier baat bi de yusawisu mooy loolu day jax-jaxal day jaxase xelum al juhala ñi riir ñi xamul ni d'accord les égarés voilà non les ignorants les ignorants mooy ñi xamul ni juhala waaw ci jaxlu la jógee l'ignorance mu ne wa ida kaana bu fekkente ne nekk na nasruhum dimbali leen min min nusratillahi min nasrihi min nasrihi dafa bokk ci dimbali ko moom allahu buur yàlla bilaa shakkin ci lu amul benn sàkk sikki sàkka mm-hmm. ah mm-hmm. kon maanaam ne kon an lii wérte lii mbirte mbir woy mm-hmm. man nasarahum képp koo xamante ne kon daf koo dimbali daf leen a dimbali ñoom nitu yàlla yi yan suruhu dana ko dimbali allah bur yàlla taala kawe qaala wax na taala moom yaa bur yàlla mu kawe mi nee na ci suratul muhammad sallallahu alayhi wa sallam juróom-ñaareeru aaya bi nee na yaa ayyuha alladina amanu in tansuru allaha yansurkum mu ne yaa ayyuha alladina amanu eh, yéen gaa yi nga xam ne gëm ngeen te dëggu in tansuro su fekkente ne dimbali ngeen allah bur yàlla yansurkum bur yàlla dana leen dimbali mm-hmm. waaw ku dimbali yàlla yàlla dimbali yàlla dimbali la mm-hmm. ba pare def cee teg wayu sabbit ba pare day dëggal day day saxal ak daamakum seen dëggu tànk maanaam day day saxal seen taxawaay mm-hmm. moo yàlla da jàppale bu baax kenn du la mën a yëngal kenn du la mën a daanu ku wéeru day seetu gannaaw borom day comme seen seen mm-hmm. Babacar wax radiyallahu wala wala yansuranna man yansuru ci suratul xajji ci quarantième aaya bi mu ne wala giñ na ni wallahi la giñ naa ni yansuran na dana dimbali fokk rek yàlla dana dimbali allahu bur allahu bur yàlla yàlla dana dimbali man képp koo xam ne yansuruhu daf koo dimbali ku dimbali yàlla yàlla dimbali la mm-hmm. waqaala ba pare wax na tam ba tey moom suñu boroom subhaanahu wa taala ci suratul rum aya 45 wa kaana xaqan alayna nasrul muminin wa kaana sax na mësuta deñ te du deñ mukk xaqan di nekk àq boo xamante ne ñun buur yàlla alay naa ñoo ko tegoo suñu kaw ci suñu mbaax ak suñu yërmande ndax yàlla dara waru ko mais ci mbaaxam ak yërmandeem nee na man tegoo naa nasru ci dimbali al mu'minina way gëm ñi ñi nga xam ne dañu maa gëm te dëggu ci seenu ngëm hmm. man danaa leen dimbali waaw muna wa iza kana bu fekente ne kon nek na khuzlanuhum senu beccangal xiyaanatan bi aji wor lillahi ñeel bur yàlla wa rasul ak yenen tam bi sallallahu alayhi wa sallam fala shakka amul benn sikki sàkka fii ci ne annahu li wér boor mooy xaraamun dafa haram kon sikk nekku ci ne di len setan bañ leen dimbal dafa xaraam haram moo parfois lolou motax est-ce que dinañ bolé ñak ak ñak jëf dañ ñu bolé ci jëf yi manam attar ko bàyyi ndax ci jëf yi la bok loolu mu usuli yoone yi looloo tax ñu dugg ci wax parce que nit ki le simple fait que deful à affaire est-ce que loolu dañ koy considérer comme étant un acte ou ou pas. le fait de ne pas agir est en soi un un un acte voilà une action voilà un acte voilà loolu ci acte la voilà loolu moo tax borom xam di di di ci insister ci wax parce que c'est très important. voilà c'est très important le fait de de de ne pas agir. Hum. bu nekkee dañuy dañuy diñet. Euh, borom xam-xam yi. topp ñu nekk yoonu yàlla dañu jub. arifina billahi ñuy hmm. wax dëgg. Hmm. yow défendre loon mais conséquences yi nekk ci. ginnaaw dafa voilà ils hmm. loolu mënul loraange yi. voilà ñuy jur moo moo gën moo pire junni yoon. junni yoon que mu ne kon nag sikk nekkul ci ne kon bu boobaa loola day xarab wa annahu te lu wér bu wóor mooy loolu kat yakunu day nekk sababan sabab li tardi ngir yàlla dàq nit ku mel noonu ci péyam ba Mm-hmm. même bu bokkoon ci nit yàlla yi tem yàlla dégradé ko juste a cause de loolu mm-hmm. wal bood ba pare soril ko mm-hmm. an rahmatillahi walu yërmande yàlla dunyan àdduna wa uxra ak alaxira loolu rek mën na nekk cause yàlla allah allah allah soril nit yërmandeem àdduna ak alaxira yàlla nañ ci yàlla musal qaala wax na al taala bur yàlla suñu borom subhanahu wa taala wax na nee na ci suratul anfal aya 27 يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا yéen gaa yi nga xam ne gëm ngeen te dëggu laa taxunu bu leen war mukk allah bur yàlla war rasul ak yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam wa taxunu kon bu boobaa dangeen war amaanaatikum seen kóllëre ga ngeen kóllëre wonte woon ak bur yàlla ak seeni wóllëre ak maanaam li nga waaw wa antum te yéen da fekk nag yéen taalamuuna yéen a gën a xam ngeen xel li ngeen di def mm-hmm. mu ne loolu nag lan moo tax mu ne li annahu ndax li wér wóor mooy xat dëgg-dëgg sabata dafa sax an na ne daal li mbir te mbir mooy adama nasruhum ñàkk leen a dimbali xiyaanatan loolu ak woor la lillaahi ñeel bur yàlla war rasul ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wa qaala te wax na taala bur yàlla subhanahu wax na ci aaya cinquante-sept bi nekk ci suratul ahzab mu ne inna alladina yu'duna allaha wa rasulahu la'anahum allahu fi dunya wal axira inna alladina li moy boor nga xamne ne yuzuuna dañuy wor dañuy lor dañuy wax wax ju ñaaw wala bok ñuy jëf-jëf ju ñaaw koo xamantene day dem jublu ci allah buur yàlla wa rasuluhu ak yenen tam bi sallallahu alayhi wa sallam lol dal kep ku ko def na xamne ne ñoñu non noonu laanahum mu rëbb na leen allah buur yàlla fi dunya ci aduna wal akhirati ak al-akhirah mun qala waxna al-mufassiruna way firikatu al yi nee nañ manam ah maanaam eh, dimbali yàlla ak yenent bi pour ñu ñëw ci ci gàttal dimbali yàlla li muy tekki mooy dimbali diine ji dimbali nit ñu baax parce que yàlla ci jëmmi boppam soxlawul ko ko dimbali ci dara Allah se suffit <laughs> voilà <laughs> kooku moom c'est sûr kon dimbali yàlla li muy tekki mooy nga fexe di doxal diineem di ko dimbali di ci jéem a jàppale diineem nit ñu baax ñi nga di jàppale parce que ñoom ñooy taxaw diine ji ñooñu nga jàppale leen boroom xam-xam yi nga xam ne voilà ñooñu nga jàppale leen dimbali leen loolu mooy dimbali di dimbali yàlla mm-hmm. ñooñu nag la yàlla ne képp ku def loolu kon yàlla dina la dimbali mm-hmm. képp ku leen jàppale ci voilà maanaam kon loolu daal voilà mooy maanaa bi gën a feeñ mm-hmm. mooy maanaa bi gën ci ci loolu léegi nag fii nag mooy lor yàlla maanaam lor yàlla dans le sens lor al isaaya mooy lor goo xamante ne ci wax lay jëm wala ci comportement maanaam mooy ñàkk a teggin wala yooyu lor googu moom mooy al isaaya maanaam mu ne nag lor yàlla yenent bi sallallahu alayhi wasallam yoolu képp ku ko def mu ne ñi koy def yàlla rëbb na leen àdduna ak àllaaxira te dinañ am mbugal bu metti loolu la alquran wax mu ne waaye boroom xam-xamu tafsir yi wax nañu ne ci maanaahu maanaa wax jooju mooy innal ladina nekk gaa yi nga xamante ne yuzuuna dañuy lor dañuy awliya allah yu nitu yàlla yi waliyu yàlla yi mm-hmm. loolu lay te loolu lay tekki nee na parce que ñooñu mu ne wala shakk te amul benn sikki sàkka anna al inkaara naka diingat wal i'tiraadu aka gaaral ali ah, mhm. di di alayhim ci seen kaw isaayatun kooku lor la lahum ñeel leen di leen taxaw di leen contredire mhm. di leen contredire ak di leen euh, di di di di euh, di wax lu ñaaw ci jëm ci ñoom et ci kaw nga am argument wala am argument Euh, c'est que yooyu yëpp ay ay ay façon la inshallah dinañ ci ñëw ci biir. dinañ ñëw ci biir ci ay maana ay façon la c'est que xam nga nit mën na mën na ben walu yu mën na wax ben affaire. Mhm. fekk walu yu amul raison. Mhm. loolu day am. Mhm. parce que nit la day juum. amul raison même loolu wala mu nekk euh, borom xam-xam. bo xam te nit ñi dañuy dañuy jariñoo ci mom ci xam xam xam nañ voilà. Euh, am na ñoo xam ne boo jarul ñuy citer ay tour mais mun mun nañ xam ñoo xamante ne vraiment yàlla def na à travers ñoom vraiment nañ ñi dañuy jariñu seen xam-xam mm-hmm. kooku moom wax am nañ ñooñu nag même booy dindi seen thèse doo ko waxee nu ne booy réfuter seen waaw boo koy réfuter doo ko waxee nu ne voilà ba pare jarul ngay tudd tour et cetera day ànd ak teggin voilà day ànd ak teggin ba pare sax maanaam mën nga ni ah diw de ñëpp xame nañ ko ni baax na ñëpp xame nañ ko ni day liggéeyal diine ji et cetera ñëpp xame nañ ko ci xam-xamum dañ koy lu dul benn du ñaar dañ koy seedeel lu baax dañ koy seedeel xam-xam bu wér ak yooyu mm-hmm. waaye nag waaye nag vraiment question bii précisément mm-hmm. nangam ak nangam ak nangam moo ci gën a jóg défendre diine ji kame parce que yow li ngay ci jublu mooy défendre diine ji comme jour bi nga doon wax ne que imam al ba mu nekk moom gëmul nekk nit mun na gis mala voilà waaw nga ne ma loolu wax boobu dafa dafa kii waaw dafa voilà wax jooju waaw même borom xoxo bi dañ ko ci effectivement hmm. rafetal nga wax bi jour boobu parce que da nga ne loolu tax na rek mënul nekk xut bu parce que loolu du conception bu bu logique waaw waaw du conception kii waaw parce que waaw kon lu Cheikh Abdas da baax radiyallahu anhu dañ ku ne malaaka da ngay gis malaka nit du gis malaka xamal ne kooku du dafa fekk ne bokkul ci ñu mag mag ci diwaan beeg yooyu parce que ñoom waa diwaan bi dañuy gis malaaka yi. waaw <laughs> dañuy malaaka yi waaw. yu fay ñëw ñooñ ñooñu c'est parce que bokkul ci wàllu yu mag yi boroom garaat yu kawe dafa bëgg du tudd wala maqaama yooyu daal yëgul foofu moo tax. dañuy gis malaaka yi nii nii. moom xanaa gisoo mu lay expliquer ci ci mhm. ci Ibris nan la malaaka mel <laughs> si si. Mhm. Eh. dégg <laughs> waaw. mu ne kon kon nag lool lay teg waaw waaw mu ne voilà mu ne rawaa soloo na al imaamu ahmad rahimahullah mhm. ci musnadam bi isnaadin xasanin ci càllale goo xamante ne xasan la wér la marfoo an bu ñu yëkkati ba ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. mu ne man zabba képp koo xamante ne jañal nga mhm. tontu nga an arabi Mm-hmm. wal ci dere an ardi ardi ardi voilà ci dere deruk axi yi mbokkam muy réputation mm-hmm. fil xiibati eh? ci jëw mm-hmm. kaana nekk na xaqan di àq droit boo xam te ne alallaay buur yàlla tegoo na ko ci mbaaxam ak yërmandeem an yaati kaxoo ci mu goreel kooku mi na naari ci sawara maanaam képp koo xam te ne dañoo jëw jullit ci sa kanam yow nga taxaw ci kanam fi ñu koy jëwee nga défendre ko te yàlla rek tax yàlla yenn bi saa am ne yàlla nee na droit tegoona moom ne dana la goyal ci sabara te jullit jullit simple yi la loolu mooy jullit simple yi lan ngay xalaat bu dee ñi nga xamante ne ñooy boroom xam-xam yu ràññeeku yi ci diine ci nag hmm, hmm. waaw kay <laughs> parce tamit défendre nit ki pay gi day gën a rëy selon moom importance su nit ki. importance lu muy am surtout ci ci yàlla. voilà ak surtout tamit ci voilà toll ak ci diine bi. voilà ni ñu ko xamee réputation. voilà nu mu farloo ci yëf yi. voilà selon loolu. la pay gi di gën a rëy défendre benn Moussa wala mu Mamadou. moom moom c'est de base waaye défendre imam Ahmad. voilà wala imam Malik. voilà ah. moom moo gën a garaaw. alhamdulilah alhamdulilah. mu ne war a waa solo na at-Tirmidhi imaamu at-Tirmidhi rahimahullah marfu an boobu muy xadis boo xam ne dañ ko yëkkati ba ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu lañu xadis marfu xadis marfu mooy xadis boo xam ne dañ ne yenent bi moo wax nangam sallallahu alayhi wa sallam waaw xadis mawquuf mooy mooy mooy xasan non non mooy loo xamante ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo ko moo ko wax waaw موقوف موي لو خامتاني شي صحابه بلا يوم مقطوع موي لو خامتاني تابعي نيوكو واخ مو تابع تابعي لول موي لول موتاخ بن بي نيوكو بو مرفوع امنا موتاخ من وق قيل لا يختص بالمرفوع وجاء بالموقوف والمقطوع كم الامام السيوطي رحمه الله تي الفيام بمنا واخ نان ني تام مانام حديث يامول رك تي مرفوع moy lu yenent bi wax sallallahu alayhi wasallam lu njëkkati ba ci yenent sallallahu alayhi wasallam mais mën na nek bo xamne mawquf la wala maqfu hadith hadith yëpp ñetti groupe la c'est c'est mais hadith yëpp la source c'est le prophète sallallahu alayhi wasallam non non lool moy lool la c'est-à-dire que motax mu ne waqiila la yaqtasu bil marfu'i wax nañu ne ah yamul ci marfu kesse marfu mooy yenent bi sallallahu alayhi wasallam moko lool tax mu koy préciser nan marfu'an voilà xadis bi dañ ko yëkkati ba ci yenente bi sallallahu alayhi mais mawquuf mooy mawquuf mooy loo xam ne saxaaba moo ko wax bu dañ naan xadis mawquuf la parce que xadis mën na wér mawquufan te du wér maqtu marfu'an comme xadis neuf bi bi ñu jàng ci ci waaw xadis boobu non kooku marfu' la ndax waa ji yenent bi Abu Qatada radiyallahu anhu yenent wax ji maanaam feeg nee nañ yenent bi nee na d'accord sallallahu alayhi wa sallam marfoo marfoo la bu dee ne saxaaba bi wax na waaw kooku la mawquuf waaw bu nekkee taabiyon la kooku maqtuu maqtu maqtu voilà voilà dégg nga mu kon nag kon imam at-Tirmidhi rahimahullahu taala soloo na marfoo wax ju ñu yëkkati ba ci yenent bi sallallahu alayhi wa wax ne man radda képp koo xamante ne nga an ardi axihi wallif der sa deruk mbokk raddallaahu yàlla dana la del dellool maam dana la tontul mm-hmm. wala dana la dellool an wajhi wallif jëmmam ji wala xar kanam gi an naara safara yowmal qiyaamati yow bisu taxawaay ba <laughs> insha allah waaw koo xamante ne sa xol maa koo xamante ne sa mbokk jullit mhm. da nga koo tontul mhm. dellool ko lor bu ko nar a dal yowmal qiyaamati yàlla dalay dellool safara tamit bu naree yegsi ci yow yowmal qiyaamati insha allah mu ne woo fi riwaaya am na ci benn riwaaya maanaam lu ñu toxalee xadis bi mooy version mhm. su ma topp nag talaa suñu borom subha maanaam yenent bi talaa mu daal di tari moom rasulullah yeneen ndawal yàlla le sallallahu alayhi wa sallam daal di tari aaya bi mooy bokk na ci aaya yi nga xamante ne moom lañ doon lim sànq te moom mooy aaya bi nekk ci sooratu Ruum 47 aaya bi mu ne wa kaana xaqan alayna nasrul muminin wa kaana nekk na musul deñ te du deñ xaqat di àq droit boo xam ne alayna ñun buur yàlla ñoo ko tegoo ci suñu mbaax ak suñu yërmande nasrul muminin mooy dimbali woy gëm ñi وروى سلون أبو داود إمام أبو داود السجستاني رحمه الله وغيره ak keneen ci ñeneen ci borom xam-xamu xadiis yi marfu'an wax joo xamante ne dañ koo yëkkati ba ci Yonent bi sallallahu man xamaa képp ko xam te ne dangaa aar dangaa protéger aji gëm min munaafiqin ci ab naafiq boo xam ne aadaahu mhm. ba asadana dana yónni dana wàcce allahu bur yàlla malikan malaaka boo xam ne yax mi dana aar laxmahu yaramam mhm. yowmal qiyaamati bi sub taxawaay bi min naari jahannama ci sawara jahannama mhm. yàlla day yónni malaaka boo xamante ne day sa deret sa sa sa sa sa sa yaram laxma nag lay utiliser mooy yàpp mais maanaam yaram la bi la ci jublu mhm. voilà sawar ak jahannama wa rawaa soloona ibnu abi dunya rahimahullahu taala mawquufa voilà xadis boo xam ne léegi nag saxaaba moo ko wax hmm. mu ne man nasara képp koo xamante ne hmm. dafa xettale axaahu mbokk jullitam hmm. al muslimu ba daa ji gëm maanaam al bu mbokkam al bu di jullit fil xiibati ci jëw wala bokk fil xaybati ci fàddu de façon loolu la benn la mooy fil xaybati mooy ci fàddu wala fil xiibati wala bokk ci jëw nasarahu dana ko dimbali allah bur yàlla fi dunya ci àdduna wal axirata ak àlaxira waaw wax ji lii moom lañ wax mawquuf mooy wax boo xam ne saxaaba moo ko wax radiyallahu anhu mais léegi saxaaba bu waxee benn wax wax ji du am àtte ni yenent bee ko wax sallallahu alayhi wasallam lu Abubakar Siddiq radiyallahu anhu wax bu kenn ne yenent bi wax na ko sallallahu alayhi wasallam déedéet il y a de fortes bi wax ko il y a mais vous obligatoire même si ci la même vous actif mm-hmm. à moins que vous vous as-Siddiq wax ni ko voilà da ko ci mm-hmm. sallallahu alayhi mais mu am exception ñu comme vous bu ne jamono bi de sallallahu alayhi sallam lañ daan def wala sahaba bi radhiyallahu anhu par exemple sallam digal nañu nangam manam mu ne ñun dañu nañu nangam wala nangam. wala daganal nañu nàngam wala xaraamal nañu nàngam comme yenent bi sallallahu alayhi wasallam moo fi nekkoon di diglee ko tere di xaraamal ak daganal dañuy xam ne kon yenent bi moo tax muy wax sallallahu kon booba dañ koy jox àtte ni yenent bee ko wax même bu ko préciser wul wala mu daal di wax ne masalan euh, euh, wax ci mbir moo xam ne mbiru xaybu la comme ne nàngam de ku ko def yow man xëy am daal dana wala ne nàngam de ku ko def yàlla dana la bindal nàngami tiyaaba mm-hmm. moom mu wax ko même bu ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko xam ne yenent bi moo ko wax mm-hmm. parce que loolu affaire kumpa la yoo xam te ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam moom mooy mën a expliquer yu mel noonu wala boog mu wax ne euh, masalan euh, par exemple maam aadama day ba ko yàlla bindee nangam ak nangam wala yenent yàlla Nuh alayhi salaam am na nangam bu xewoon jamonoom wala yooyu yooyu mais mais nag loolu mooy partie bu mujj bi mooy partie wu Euh, wax loo xamante ne masalan ci ay kumpa la aju wala loo xam ne ci histoire ñu njëkk ña la aju wala boog ci loo xamante ne tafsiru benn day firi ab aaya alquran la aju loolu balaa ñuy wax ne xadis boobu bu nekkee mawquf maanaam saxaaba radiyallahu bu ko waxee balaa ñuy wax ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax day fekk ne saxaaba boobu bañ a nekk ku siiwee ci di jëlee ci ahlul kitaab yi hmm. comme par exemple bu dee Amr ibn al-As radiyallahu moo ko wax كوكو بن كود بن كود باسكو لان عمرو بن العاص انا عبد الله استغفر الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما موم دا دا دا يورن صاح اب اب تيري موم بو خامني دا دان جيل سي يهودي اك نصران دي دي دي بيند سين اي واخ دونك كوكو موم مانام بو وخه بن واخ جو خامتني دا فا اجو تي يومل نون كين دون يانتي بيك واخ صلى الله عليه وسلم باسكو بور باسكو لان possibilité mu jele ko ci juif yi wala ci chrétien yi mhm. mais mais je veux dire déjà rek

mais est-ce que mën nañ ni yeneen ci bee ko wax wala déet sallallahu ñoom loolu moo leen amal solo maanaam dañuy bañ ñu wax ne yeneen bi nee na fekk waxul même ku dee wax ji dëgg la sallallahu alayhi wasallam tey loolu tax kenn amul droit benn wax yeneen bee wax sallallahu alayhi wasallam ak nga xam ne li nga wax ni xel la dëgg la ah non non jamais non loolu ku ko def dañ lay bannir ci biir ñi ñu mën a jàngee ci ñoom xadiis rawatina xam-xam rek sax en dañ lay bannir ci seen liste bi à jamais à vie même boo tuubee nga wax boo xam ne waaw nga waxal ko te tey ko te tey ko loolu mooy moo mooy mooy sos abru mooy voilà sos wax loolu moo tax ñoom loolu dañ koy loolu dañ koy yittewoo yi est-ce que yéen C'est moo ko wala wax ça léegi nag am na nag ñoo xam ne dañ lay dañuy wax ak daayif la wala yooyu parce que voilà mais bu dee yow yaa yaa ko yaa xool en âme et conscience si amoon nga créer benn wax

dañ naan bu dee saxaaba bi noonu loolu la wax saxaaba bi radiyallahu anhu par exemple dafa wax ci comme même Ibnu Abbas Ibnu Abbas radiyallahu anhu li muy màgg màgg màgg màgg su waxee ci loo xamante ni ci affaire ray bu la aju ne par exemple suuf si bi ko yàlla bind nàngam ak nangam la woon wala asamaan si nangam la woon wala boog euh, euh, euh, ma malaaka yi nangam yooyu sax duñu wax ne yeneen ci bee ko wax dañ naan Ibnu Abbas nee na mm-hmm. waaw Ibnu Abbas nee na loolu la ñuy wax daal di noppi comme mom parfois da dan jeli ci ahlul kitab c'est vrai que moins que Abdallah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu moins que mom mais téerewul dañ koy dañ duñ wax ni yeneen ci bi moo ko wax sallallahu alayhi wasallam yépp pour mëna sam ci lool mais acte bi mais hadith bi day am acte né yeneen bi moo ko wax sallallahu alayhi wasallam ndax lan mm-hmm. ndax dafa aju ci pay mm-hmm. voilà mm-hmm. waaw dégg kon mu né euh آه، منور روات سلونا ابو داوود اه واو كون نيوم فوف ان شاء الله فوف لا فوف لا يعني والله اعلم صلى الله على نبينا محمد عليه الصلاه والسلام سبحان ربي رب العزه والصلاه والسلام على رسول الله